walla ñu ngi lay nuyu ci turu seexal Alassane di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yaakaar naa ni kaddu yi bi bu jógee li mu war a waxanteeg yow dana ko waxanteeg yow waaye li la dal du jaas ndax kenn ku nekk ci ñun bis bis ngi ñëw boo xam ni ah yàlla nag dana yebal malakal mawti nag mu jël sa yàlla na yeex yàlla nag bi muy jël lumu moom rek la jël jëlagul mukk lu mu moomul xanaa gën a bees la moo fi ne waaye am na ci ñoo xam ne ci mbooloo mi ñoo xam ne ñàkk nañu way jur ñi ko ñàkkagul nag seeni way jur yàlla na fi yàgg kon nag bi ñu ñëwee tamit gis Mamor sekk mi nga xam ni sunu maga sunu xarita nga xam ni lépp loo xam ni mu ngi koy def ci événement balaa événement boobu sori ci wàllu communication dana ma woo jiital ma ci loola kon bu ma ko fi fekkee dana ko nuyu ko ma xam seen diggante ya ñaar ci bis ba nga xam ni mu ngi koy taxawal ca Mboro nga xam ni dangay ngay sa yitte yaag Abdoul Aziz Ndiaye ñëw fekk si ko kon bu nu ko fi fekkee danañ ko muy sunu lépp waaye daal ki ñëw daal bi Moustapha di jël téléphone am di la woo wax na ni la gan gu mag a ngi ñëw koo xam ni ci réew mi kenn du ko présenté ci réew mi ak bitim réew kon nag ñu ngi ñaan yéene ji am ak liggéey bi mu bëgg ci biir réew mi ak yéene jima amal eh, amal jaam ñi yéene jooju suñu borom yeggali ko te mottali ko ndax wax dëgg yàlla eh, loolu rek lañ koy ñaanal kon nag dañuy bayi kaddu gi ak moom moo yëkkati kaddu bu yëkkatee kaddu ba noppi nag kaddu gi nag doog a dem ci buur incha allah seex bi nee mu ngi sant yàlla bu baax nee na des di ko sant nee di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom aba zahra nee mu ngi nuyu mbooloo ne Balla mu ngi lay nuyu ak sa mbokk yi ak sa àndandoo yi ak say wëllëre ak say soppe nee na lii ñu def tey ñëw seet si la jaale la nee na war jullit bu ne ci mbokk jullitam nee na ci tànk yooyu rek la ko teg moo tax bi mu jógee tey ji dem jaale ji alaaji Moustapha Guèye mi toog ci sunu wayjur wi génn àddina mu wax ni dana ñëw ñëw jaale si la nee na daanaka sax miinante wuñu wax dëgg yàlla nee na su waxee dëgg benn yoon lanu mu sa gise te kilifa nag moo la indi woon ca këram ci benn guddi muy Omar Imaam nee na ñu amoon jotaay bu am solo nee na ñu fasante woon wëllëre moo tax nee na lu mel ni su xewee ci yow nee na ñu jël suñuy tànk ñëw seet si la masawu la nee na bokk ak yow mbir mi bi muy xew booba seex bi nekkul woon ci réew mi moo tax mu ñëw tey jii doxale ni mu doxale nee na ki génn àddina moom kilifa gu mag la woon ci réew mi nee na nit ñi bëgg ko lool ndax jikkoom ak taxawaayam yow mi ñàkk it nee na nit ñi bëgg la lool ndax sa taxawaay sa bëgg doomu aadama sa bëgg diine ak fonk lool fi nga bokk ci Seyxul Xadiim loolu nag nee na nekk lu rëy ci réew mi nee na su yàlla dimbalee nga mën a jàngat nee na soo gisee Balla Gaye nee na su fekkee ne am nga basaratul xalb da ngay xam ni làmb ji gannaaw bi mu nekkee mécc ci yow nee na liy dox ci yow dëgg dëgg dëgg mooy dëgg yi ngëm nee na ci sa dund gépp da ngay xool ci moom bëgg bu mat sëkk ci seyxil xaddim te seyxil xaddim nag soo ko bëggee doo dandu mukk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee doo dandu mukk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax jotaay bii amal ko solo lool lool sax su fekkoon dafay nekkoon ci jamono ba mu xewee nee dana ñëw ànd koog yow nee na ci wàllu taalibe kese parce que àdduna bi nit ñi nit ñi ni ci ëpp léegi danoo war a delloo siwaat seen xel addina amul benn solo du alal nee na du yu rafet yi ñuy gis nee na donte am ko baax na waaye nite moo waralal lépp nee na Moustapha mi toog nee na seen xame ñoom ñaar ëpp na vingt cinq ans bi mu nekkee ci diggu ndëndëm booba cheikh baa ngi dëkk HLM. nee na mu ñëw seet si ku ñuy wax Ousmane Bari. nekkoon wóllëre Mbay Géy. nee na Moustapha li ko nit ñi topp lépp ndiiraan. ndax li mu ñëw ci HLM. yaa ngi gis ci moom. waay waay woyof gu mat sëkk. ne ñoom ñaar ñoo naanandoo ataay bis boobu. yëguloo ni sax. tigre de Fass bi Youssou Ndour daan way jamono bi Youssou Ndour daan way jamono jooju ñëpp bëgg mu ñëw ca ñoom nga xam ni ñëpp bëggoon alaaji Moustapha Guèye ñëw ca ñoom jamono bi nga xam comme Balla ni mu mel mooy jamono jii nga xam ni Balla nii mu mel tey wala ñeneen ca ñoom wala ñeneen ca ñoom waaye terewul waaye terewul nii mu mel nii nii mu mel nii musul musul génn lii musul génn lii nii mu mel man mën naa ko seede nee seex bi mën na koo seede nee na dund nañ fii ci Ndakaaru wax na ko léegi wax na ko léegi diggante Paris diggante Paris Italie Italie Suisse Suisse fu mu fa musa nekk fu mu fa moom ak Madiagne Ndiaye moom ak alxaaji Madiagne Ndiaye fekk nañu ma fekk nañu ko fa ñuy waxtaan ñuy waxtaan ba fajar donc Balla su euh, suñu amee daal lu ñu lay dolli ñun suñu amee ñun lu ñu lay dolli ñun mooy sa bi nga wéeru ci ci yonent nee na wéeru gi ngay wéeru ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te li koy firnde euh, dafa am bis dafa am bis ne mu laaj ma man mii mu ni ma yëg naa ci Balla Gaye ku bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne am na doomam boo xamante ni Muhammad la tudd mu ni ma est-ce que la wala indirectement mun ma yonent bi la ko tuddee directement loolu yëg-yëg la bu kawe mu ngi jéggalu ci kaddu gu guddi gi di leen sant bu baax di la ñaan nga jottalil ma njaal mi sa mbokk yëpp jottalil ma ko sa wóllëre yi kii di baabooy nit ku tedd neen li tax mu wax ko dafa am wóllëre moom bu mag wàññeeku fan yii benn guddi daa ñëw këram ne ne Malick mii moo ko indi ndax seen wëllëre sori na nee na ñuy waxtaan nag ba mu tudd Baboye mu am lu mu ko wax ni ko il faut nga dox ko kan moo lay mën a gunge mu ni Baboye rek laa ci wolu moo ma wax lii musuñoo gisee musuñoo gisee wax na ma lii wax na ma lii ba ca topp ba ca topp sëñ bi sëñ Mamour Seck ku tedd ngi ne ku tedd ngi ni ku fidèle ku fidèle ku jàpp ñàmburam ku jàpp ñàmburam ne ku fonk diine te lu am solo la te lu am solo la encadrement bii nga am ne encadrement bii nga am lu kéemaane lu kéemaane la la ca sofu nag la ca sofu nag mooy liiru liiru jaan ne ne mu bëgg ko lool mu ngi koy doog a gis ne gis na ni xool bu yaatu la am ne dafa xool mu dox gëddanteeg Balla ci tooñ mu ni kii du war mukk wallahi la azim loolu la ko sunu borom dimbi mën naa xool nit ñi rek xàmmee ci ñoom lu bëri maa ngi sant di la ñaanal aussi wér di la ñaanal eh, yàlla doon sa cëslaay yàlla nag doon sa cëslaay li tax ma ñaanal la li tax ma ñaanal borom moo wax ci surat baqara nee na ci suuratul baqara aaya defe naa benn eh, téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom benn nee na aaya ak juróom-ñett fukk ak juróom benn wax ne wa iza saalaka ibadi anni fa inni falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun yàlla ne nee yàlla wax ci aaya boobu dafa dafa interpellé ne dafa interpellé doomu aadama directement doomu aadama directement ne soo ma woowee ni ko yow soo ma woowee ma wuyu la ma wuyu la ci jamono ci jamono bi nga ma woowee bi nga ma woowee loolu la jiital ne loolu la jiital yàlla chantageul ne yàlla chantageul parce que dafa élégant moom yàlla dafa élégant ñaareel ba fal yastajiibu li muy doog a woote moom ci wooteem xoolal moom yàlla ni mu ko doxale moo tax moom sañ-sañ ñaanal la yàlla am sañ-sañ aussi ni soo wéete nga ñaanal lu li tax mu wax ko ñaari mbir benn bi ne déggagul ba léegi ne sëriñ bi moo mën a maye. ne da ngay dégg ni moom sëriñ Tuubaa ak a mën a ñaan yàlla. ne moom wala sëriñ bu mu mën a doon rek. yàlla. ne yàlla dana ràng rasulillahi garaat boo xam ni mosu koo ràng benn doomu aadama. asafaatul uzma la tudd. mooy la grande intersection. mooy la grande intersection. ne mu jagleel rasulillahi ñuy ram mu ram mu ñuy jullit ak ñu dul jullit. ne suñu soppe dafa bëri kersa. ne suñu soppe daa bëgg daa bëri kersa. yàlla du yem foofu. ne yàlla du yem foofu. yaa Muhammad la koy wax. yaa Muhammad la koy wax. isfa. rammul ramul ma nangul la ma nangul la. waxal waxal. ma dégg la ma dégg la. ñaanal ñaanal ma may la. lii la lii la yàlla wax yonent lii yàlla wax rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. mbir mi yemul foofu. ne mbir mi yemul foofu. biir bàmmeel biir juróom-ñaari fan juróom fan su fekkee climat bi moo am su fekkee ni climat bi moo am diggante benn fan bi ñu suulee nit ne diggante benn fan bi ñu suulee nit ba juróom-benneelu fan ba juróom fan ba sax yi sax yi ñu ngi waxtaan seen biir di xool nañu lan lañuy séddoo yaramu jëmm jooju nee na ci discipline di ko waxtaane ñu xool càngaay la xool naka la mel nag pour percer ko sax nag ak suuf ay taalibe sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit su bëri lee salaatu ala nabi cangaayam sax ne sax ya duñu ko laal ne na suuf nag du tañ ci yaramam leeru yonent bi mooy wéttali kañu denc ba bis penc yal boole sa wayjur wii fi jóge yal na ko yàlla boole ca ñooñu nga xamante ni ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk seen wéttal moom gën gi mindeef ne li neex ci wax ji ne saa yu nu dëgmalee nag di waxtaane yonent bi lu aajo yu bari bari ne su nit ñi teewloo malayka yi ne ñu ngi yónnee message ci pays yàlla di wax diw doomi diw ak doomi diw ma ngay toog di taaxeerlu fa ñuy waxtaane sa soppe bi yow yàlla ñu ni yàlla lan moo war a nekk nag payooru kooku ne mu dëkk malaat nag rasulillah moo tax ne ne borom xam-xam bu mag physicien la belge ne Seyxul Xadim dafa wax ni ne soo bëggee xam dëgg-dëgg kan mooy yonent bi ne da ngay daw nag ci suuratu naj mi aya benn ba fukk ak juróom-ñett mooy soo ko yëree da nga xam dëgg-dëgg kan mooy Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn physicien. dafa jàng xasida bi daal di wax ni aha maa ngi doog a ràññee nakate jibril bi jël si yonent bi bi jël si yonent bi jëmee ko ca isra bi voyage bu mag ne ne jëmee ko ca isra ca voyage bu mag ba mu ne ndekete miinul fa mu jëm ndekete moom ka ñuy yóbbu nag miinul fa mu jëm ndekete ndekete ki mu jël si ki mu jël si kookoo miin kookoo miin fa mu jëm mu ne du jibril mu ne du jibril de ñu ne ko lu tax ñu ne ko lu tax ñu ne yàlla moo tax Seexul Xadim kenn du moom moo tax Seexul Xadim kenn du moom ci bëgg ci bëgg nee na ci bëgg sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee ci dëgg dëgmal rasulullah nee na ci taxaw rek di xaar rasulullah bi nga xamante ne Jibril wax na loolu ne bi nga xamante ni Jibril wax na loolu ne ne ñëw na jël si ko firnde ne mu jëm. ne li tax mu firndeel ni moom xamul fa mu jëm. ba ñu àggee ca juróom-ñaareelu asamaan. ba ñu yëggee ca juróom-ñaareelu asamaan. yàlla dafa wàccee nee na benn rido. ne yàlla daa wàcce benn rido. mahazal basr wa ma taha. wëlbatiku encore nee na wëlbatiku encore. nee na ci biir surat bi. summa dana. fatadalla. fa kaana xaaba xawsayni aw adna فأوغى إلى عبده ما أوغى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربي الكبرى ba moo ko tëj ci fukk ak juróom-ñett nekkite yoo Jibril lu mu seen àgg ca ne yonent bi lu mu seen nee na looloo obligé ne def déplacement ñëw ci sayduna Muhammad waaye waaye kay dem ca mbir ak ki mbir di fekk si ne ñoom ñaar wuti na moo tax fa la yemale wax ji di la sant bu baax di sant ñaap di feddali kóllëre di ñaan kër gi yàlla na fi yiw yàgg yàlla na yàlla dimbali la ba njaboot gi góor gi bàyyil la ñi la féete mag ak ñi la féete ndaw ak ñi mu la bàyyil ñu ay soppe yal na yàlla may la kattan biir kattanu poos boo leen mën a yoree ba dara du yàqu ba bis bi nga koy fekk ji yal na yéex alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wa man shaa falyakfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mu mel ni kon ñun dañoo ñëw fii tey ànd ak euh, Cheikh Alassane Sène ginnaaw bi mu jaaree ci kër mbéy gi Tigre de Fass jaare si ko namoon itamit ñëw fii ci Double Less jaare si ko ndax kenn ku nekk si ñaam ñaar séqi naag baayam xaaj Majib seen wóllëre moom itamit Cheikh Alsane Sène séq ak ñun wóllëre ndax dañoo bokk génération xëy na ma këf leen mag tuuti waaye xëy na yooyu itam Balla Cheikh Alsane Sène këf la mag tuuti ma sawar lool nag ci bi mu ñëwee wax ak man téléphone dama daa bëggoon dëxëñ ñaari njaal yi def ko muy abaabakar Mbaye Guèye ak wóllëreem ba Double Less Cheikh Alsane ñu lay fàttali na la rek Mbaye Gueye ak Double Less rawante wuñu weer ndax Balla bi muy ñëw euh, di jaale si Mbaye Gueye dafa jóge ci baayam ñëw di yónnee nuyoo ak njaalu Mbaye Gueye te ku ñu matul weer mu dem wuy ji donc ñoom ñaar ànd nañ ci àdduna ànd bu rafet bokk def lu bari bokk même métier bare pare seen pare ànd def jubilé kottante ñëpp di jooy yaakaar naa ne image boobu image bi reste Sénégal la ba léegi malheureusement kenn mënuñu ko wanaat depuis la RTS parce que loolu dafa xaw jël jël tuuti temps ku ànd ak nit bëreeg moom ngeen ànd dalalante àndante ngeen bëre ba bàyyi bëre dem ba màgget sax toog di jubilé ba ngeen di jooy yéen ñaar turonkoñ loolu foor na rëy na te Balla mi tamit dafa baax ni ki su defee lu baax nga wax ko àddina yëpp dégg ko ndax El Hadj Abdoulaye Boy laa dama am si dégg ci ay kàddoom mu ne nit ki bu la defalee lu baax te waxoo ko bu ko neexee moom mi la defal lu baax mu yëg koo sàndaga yuuxu ne diw sàngam defal naa ko lu baax rabiallahu taala anhu yàlla ko yàlla yàlla yàlla clairam Balla dafa assisté waxuma la baayam bi dem waaye ay xaritu baayam mbéy ngay tigre de face xëy na yow jotoo ci nouvelle boobu bu mu tëddee feebar bañ annoncé ko moom avancé bi mu njëkk a jot ci combat yi mu dëgmal nii dafa na bala mu yóbbu dërëm ci baayam wala ndeyam wala écurie am jël naa nàngam jël naa téeméeri junni yóbbante ko sama baay mbay ma mu tëdd ah tey tamit du benn yoon du ñaar yoon indi xaru tabaski daj ci ay coono li saa wax léegi naa bëgg a dëggalaat rek que ne dafay jaamu yàlla moom la ci doomu aadama yi te loolu nag boo ko def doo ko rëcc mu da koy gis moo tax bu ma nit ñu bari dañ ñëw nag di ma song na ma yóbbu ma ci Balla dama koy jaale ji ñii ma nangul leen ñii ma gàntal leen ndax mënumaa ku ñëw ma gàddu la indi ndax moom i sax am na soxla yu mu war a yeneen ndax yi fi mi ngi bëgg gudd waaye nag balaa jàppal ne bis bi sa bàyyi demee ci suuf ba bu muy del siwaat bis mu ne ñi dañëw da jàlle si du ma sa jeex moo tax Cheikh Alassane Sène dañuy delluwaat di la gërëm di la sant sa taxawaay euh, euh, di nuyuwaale suñu wëlëra boobu ñu wax ma Madiagne Ndiaye mi nga xamante ne mu nga ci Espagne nekk bàyyi Balla Gaye mii bëgg Balla Gaye lool ba indi un peu proximité bi xewoon sa digg ak Balla Gaye moom Madiagne kon bokk dañ ci doon dugal kàddu yi rek ndax Balla yaakaar naa ne fu mu toog war fa yëkkati kàddu su ma jébalee rajo ma ñàkk wax dara lu jekku du rafet ndax sama day sama doom ju ma bàyyoo day sama doom ju ma bàyyoo man tam muy sama doom joo xam ne ba nangu naa ko bàyyoo kon bag daal li yoraloon lii daal mooy yëkkati kàddu gi donc Balla dañ jël si waat rek ah di la jaay sa ñaari baay yooyu mbéy gerte gi de Mamadou Sakho Double Less salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu inna batsa rabbika la sadiidun fa tabarakallahu xam naa alaaji Moustapha njaal mu ne am na fi waaye njaal mii tey xol yi tooy na Seex Alsaan mii wàcc ci biir gitaay bi wàcc ci biir daara ji ànd ak njaboot gii mu àndal sama rakk ju baax ji di Modou Mbuub communicateur bii nga xam ne ñoo bokk lépp sëriñ bi siggil ñu ci moom sagal ñu ci moom ndax moo ko daggal billet yóbbul ñu ko ba Dubaay boole kooki teraanga andi ko ci biiri mbokkam kenn ku nekk jël ci wàllam kon sëriñ bi jërëjëf waaye jëm jii toog tudd nga ko ak bëggëm rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ak jur doomam tuddee rasulillahi alayhi salaatu wa salaam mu jël baayam ngir sopp gi mu sopp rasulillahi yëpp baayam mu siyaara ji sayyiduna muhammad alayhi salaatu wa salaam yemul ci benn boobu defal ko waajuramu jigéen defal ko soxnaam defal ko ay goroom defal ko mboolem ku mu seqal liggéey bi ba ca turoon doom bàyyi balla yàlla na yàlla yokki leeram boroom jukko ju rafet te sa maam rasulillahi moo ne man zalima al muslimuna min lisaani wa yadihi ñu ni ko rasul loo ba a wax mu ni julit dëgg mooy ki nga xam ne julit yépp dañuy mànkoo mucc ci ayu gémmiñam ak ayu loxoom omar sunu waa ji toog lorul kenn sunu waa ji toog gaañul kenn sunu waa ji toog xeebul kenn ànd naag waajuram ba waajuram wàccub liggéey mu waajal koo ki mbok waajal koog dëkkandoo yi waajal ko julit suñu borom itam tabbal ko yoof yàlla na daje ngërëm man maam li Laay al Mahdi jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu maa ngi leen di ñëpp kenn ku nekk turam ak santam a baax a baax eh, di la sant di la gërëm eh, ci taxawaay bii nga xamante ne taxawu ko képp kuy jullit rawatina lii nga xamante ne eh, lu munta ñàkk la mook àdduna ñu ànd waaw euh, vraiment mos naa ñëw sa kër benn jour Père Madiagne moom fa indi woon comme ni nga ko waxee ñu toog di waxtaan ndeysaan te lépp ci yeneen bi rek lañ doon waxtaanee nag mu nekk nit ku baax nag làmb moo fi yóbboon ak ñaan waaye fàtte naa sax man li ma fa indiwoon ñuy waxtaan ci yeneen bi expliqué ko lépp na ko ci man dégg yàlla kon kii nu mu la ko leeralee sànq buur man na ko sama taaw man dama dama dama ñëw. yonent bi moom feeñ ñëw ma tuddee ma ko sama soxna dem hôpital kon moom am na lu tuuti yuñ ci xamul ma leeral ko rek mu ne dafa dem hôpital ñu ne ko jigéen la ma ne ko déedéet dangaa juum ma ne ko lii ma gént ak lii ma nii man mosuma gis lu mel noonu kii góor la te yonent bi laa koy tuddee mu wax daax wax suba wa nga ma ne ko billaahi wallaahi pare naa ci noppi naa ci maa ngi tukki eh, fekk moomoon benn combat bu boo xamante ne bu Sénégal yëpp bàyyi woon coow yàlla mi dérete bu jour bi nga xamante ne xale bi mu ngi ñëw àdduna jour boobu laa mës toog di xoole ba borset te xaw ma lu tax ma bëgg nelaw mu tëma dama yi ñelaw ci ngoon gi rek après soxna si wax ne ma am na doomu góor ko jarul nga ma koy wax ndax yoon ci bi laa ko tuddee jamono direct الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ما هم في وجوههم من أثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتاه وآذراه محمد مرجعنا naa yonent Yàlla Muhammadu umdatuna qudwatuna yowma aljazaayi zuxruna bi dil ibaada farami muhammadun maljauna kendu sayduna muhammad umdatuna qudwatuna yowma aljazaayi zuxruna bi dil ibaada farami مستوى كيف ترخى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولت آية سماء كان ديتي محمد مستوى أنت مسباء كل فضل فما تصدر إلا عن دويك الأدواء سنسب بوبي لك ذات العلوم jërëjëf encore yëf yi mooy li nga wax rek lu mënta ñàkk faw moom muy dee waaye kon li nga wax rek victoire mun nga ko amee ci lu ne waaye boo nee victoire dee la rek gars yi dañ naan mais dee moom mooy lan <laughs> waaye boo juree doom yu baax nga dem bàyyi leen fi ku ne di leen jaale yow mi dem yaa gën a baax kon nag wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan suñu waajur rek yàlla na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana yi gën a kawe ak suma papa Mbaye Guèye Birahim Asafrla papa Boy Bambara tubaabu Jooru Mor Fadam ñooñ ñëpp yàlla na yàlla yërëm taxare àjjana ah ak suma turandoo Baye Balla mi nga xamante ne wax dëgg yàlla def na lu ci man di ko ñaanal yàlla na yàlla yërëm taxaare ko àjjana yi gën a kawe cheikh nag yow wax dëgg yàlla ñu ngi lay sant di la gërëm taxawaay bi rafet na di gërëm père Madiagne bi nga xamante ne mu ngi ci Espagne wax dëgg yàlla di nekk suma suma lépp ci gërëm suma papa Moustapha Gueye wuy te dëgg yàlla ba mbir yi amee ba léegi musuma seetaan waaw seetaanuma benn yoon nag te yàlla même fay yàlla ko yàlla fay ak famille géyeen dëgg yàlla baabooy mii suma nit suma lépp noonu la mel ci dëj waaw bu dul bànneex bu dul naqar dama koy gis rawatina nag wax dëgg yàlla chaque jour gis maa ngi koy sant yàlla na ko suñu borom taxaw liiru jaan mooy doxit nekk suma mag suma lépp moom it wax dëgg yàlla yitteem yëpp lay bàyyi chaque jour ànd ak man di ma taxawu maa ngi koy ñaan yàlla même fa yàlla na ko fay buur mi nga xamante ne wax dëgg yàlla moom it ba affaire yi amee ba léegi mu ngi topp ci micro yi di wax rek lépp lu baax ak li nga xamante ne day def gan bu ñëw mu terte la donc vraiment sant nañ ko gërëm nañ ko di gërëm aussi tamit sumay kilifa ku ci mel ne Abdoul Aziz ak Baye ak euh, Masata di sant tamit famille Sakho yëpp lu Double Less jur yëpp na ko dëgg yàlla gis nañ taxawaay bu ñu ci def ah, ku ci mel ni suma mag euh, Malal di suñu taawu baay di suñu xalifa di suñu lépp ñoo ngi koy sant di gërëm di gërëm it suñu tante yi ak suma yaay ñëpp waaye yow it mention spéciale ndax euh, ñëpp xam nañ ne voyage nga jógee nga bàyyi sa yite yëpp boole ñaari njaal yooyu. ñaari njaal yooyu nga boole nga xamante ne ñoom def nañ lu ne ci làmb ba bu ñuy bàyyi làmb ñoo jibile jour boobu laay doog a dugg esat man waaw jour ba ñuy jibile ñoom jour boobu laay doog a dugg esat fekk Pape Konaté ak Issa yaakaar naa ñoo doon bari waa jour boobu laay doog a dugg esat di seetaan bëri waaw kon nga xam ne loolu misaal la yu bari bari yoo xam ne suñu borom lépp lu muy def rek doy na waar lu yàlla xam doy na. waaye sant nañ la gërëm nañ la mention spéciale yàlla na yàlla taxawu la yàlla na yàlla sàmm sàmmal ak mbooloo mu jurit yéen ñi fi teew ñëpp yàlla nañu yàlla fay tànk yiw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf salaam. seex bi ñu delloo kàddu gi nag Serigne moodu Mbuub di sunu rakk di sunu xarit Serigne bi moom kenn la ci ñun.